Euh, dañ ko ko jotee yow en tant que responsable lan nga ci wax ko fi ba tàyyi quoi ba ay responsable yoo xam ne dañu tànn ñi leen neex ah bon hmm. am ñoo xam ne aussi dem nañ présidence hmm. dugal fa liste hmm. seet ñi leen neex ñu def ko ci liste bi mais loolu nag dugal fa liste pour ñu joxe ay kiiw tabaski te jox nañ leen man am naa ci preuve yu ay preuve laa ci am. Hmm? yoo xam ne ñoom jox nañ leen. Hmm. mais loolu nag day yàq. yoo xam ne ci départ fii lañ nekk ci. commune Mbacké. Hmm? commune Mbacké. ok commune Mbacké. kon bëgguma tudd ay tur. waaw ah. ñoom bu ñu déggee lii danañ xam ne ñoom la. te loolu da dul doxal. te loolu joxuñ ko ñi ñu ko war a jox. ko ñu ko war a parce que booy joxe. Mm. day fexee boo ko mënoon nga bàyyi. Mm. xaj na dajal lépp de mm, daanu dajul suuf ok mais nag nga def ci loo xam ne aussi. c'est le minimum c'est le minimum quoi. mais seet tànn ñi la neex. ak yooyu. dana toll nii Magal Touba bu jotee am na ñoo ne dañu leen defal ay vari deux cent mille wala yooyu ab liste la bu dugal président. Magal Touba am na ñoo ne deux cent personnes. yoo xam ne. Magal jotee dañu leen di vari ku nekk deux cent mille. te ñoo ne ñi ngi <laughs> mais c'est grave yoo xam ne dañ leen di wari màggal Touba bu nekk Touba bu nekk dañ leen di jox fii xaalis. Hmm. jox ñuy bàyyi mais xaalis boobu xaalisu lan la. ah neexale leen ko xanaa wala ñu may leen ko wala ñu waajale ko seen màggal xaj na quoi. Hmm. bon te la ñu. ok hmm. boo gisee. kon mu mel ni gën na gën na xóot. day am parce que ñoom bu fekkente wax ne benn bokk yaakaar la ay parti allié. loo siy def da nga ciy jox parti allié yi mais bu ñëwee rek ngeen akimoo ko. ba liggéey bu ngeen soxlaa ne parti allié yi ñëw rek mais gars yi dañuy bañ